bismillahi rahmaani rahim fas yéene jëriñu la tey jëriñu fa la ilaha illallah faal fal la ilaha illallah fal yàlla daan faal na yongo maam Cheikh Ibrahima faalo yaa di babilulom fal la ilaha illallah fal fal la ilaha illallah fal fal la ilaha illallah fal maam Cheikh Ibrahima faalo yaa di babilulom ku sa maam faal xaram réew fu la faal na lambe faal la ilaha illallah faal faal la ilaha illallah faal faal la ilaha illallah faal faal la ilaha illallah faal la ilaha illallah faal maam Cheikh Ibrahima faalo maa ngi ñaan faal dala ñaan Sëriñ Muntaxa yàgg fee fal laa ilaaha illallah fal fal ilaaha illallah fal fal ilaaha illallah laa ilaaha illallah fal bur Yàlla yaay buur tamat